asalaamaaleykum waa Gambia ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu uh, bare bare bare rawatina yéen ñi nga xamante ne ni uh, yéen yéen a safoo di fële suñu media plateforme si uh, ku am xee ku xam Eva nag xam ko ci interview ay artiste xam ko ci ambiance xam ko ci kafawre waaye tey nag ñëw nañ si nga xamante ne ni mooy boori Serekunda jàkkaarloo suñ benn sista ndaxte defee naa ne Gambia bi kenn ku si am problème rek foog naa ne ñi nga dendal yëpp am nañ si problème bi waaye du nuyoo ñu gën a yaatal suñu waxtaan bi ak moom. asalaamaaleykum wa rahmatulah. man la Khadija dëkk Serekunda. nekk ne booy ñi. ok moom la Khadija nekk euh, Serekunda nekk nebo yi ñi man nag xam naa ne communication bi ak ñoom du mel noonu ah, because man dégguma pël bu baax a baax a baax waaye Khadija moom dina def euh, translation bi bu baax because su ma laajtewee euh, dara moom dina ko wax ñooñu noonu si pël et ñun ñi nga xamante ne ni ñun ñooy déglu di seetaan dinañ mën a understand bu baax a baax a baax waaye tey ji Khadija xale bi gis nañ ne comme like mu ngi amee métit bu baax a baax a baax mm-hmm. ndax mun nga ñoo laajteel yaay bi lii seen kañ la ko dab. okay wo ko gila hunde tuma ɗum heɓi o paykundo e heɓi tande de nena am na at léegi na one year yeah. and since one year bu noonu ndax uh, mu ngee dem lopitaan pour faj xale bi wala wo gila on duubru ɗon fo si tey dayaat lopitaan fi darwa eyi min dari tonkono min heɓani to lekki de minen seednaami si lopitaan yi mais amuñ garab Euh, mu ne comme dem na si lopitaan yi yëpp waaye amuñ garab ndax apart from garabi lopitaan ndax daan mën a dem si sëriñ yi fi harajoni fi wona fi lopitaan tawi yahay ko karama koɓɓe ni daarugo kondu waɗi ɓiɓɓe ma ala mi yahanide ndedide mu ne demul si sëriñ yi pour seet mm-hmm. waaye ndax comme like depuis feebari xale bi euh, dal ko ndax mun nañoo wax euh, coono yi nga xamante ne ni moom daj na ko moom muy yaay xale bi fo gila ɗum ɗo heeɓi ɓiɗɗo ma on ɗawaymo hande comme ko façon tampere honɗum naɓɗiɗa e mum ha lay tampere jibboyo feƴƴidi mum de comme façon honɗum e honɗum ɗo kay gilan ɗo nangimo son yawaɗi ɓay nden son ƴude e makko buy tigi tigi o ne wondu ɓe fo miɗen tampiɗe makko di ɓay ɓe guinde ha ɓeerum kiɓe ɓan likki makko ni eyi ina likke daflen sonal bo baaɓi cause comme wurɓini dem uti garab yi nii mhm. kon sonn nañ si bu baax daal. Mhm. Euh, loolu man mi nga xamante ne ni man maa fi ñëw tey seet si leen euh, man xam naa ne sonn nañ ndaxte xale bi képp ku amee xol rek soo ko gisee xam nga ne xale bi mu ngi dund mettit euh, ñaanuñ yàlla mu dal benn mag waaye tey ji amaana su nekkoon si mag mag bi dina mun a wax ne pain bi laa nekk di mhm. feel euh, ba xale bi moom mënut a wax exactly ban pain la nekk di feel because defe naa ne wax bi melut noonu mhm. and pain bi su ko dooree xale bi jooy rek la dee mën a def du mën a def leneen li nga xamante ne ni am mooy weesu jooy and Kadija yow mi nga xamante ne ni yaa nekk si koñ bi ak ñoom Euh, ndax mën nga ñoo wax tuuti si li nga xamante ne ni comme mooy feebar bi ak nan la naka laa kañ la ko dal ak genre yooyu noonu. Um, actually man na comme teeluma xam feebar bi kañ la ko dal parce que mhm. man sax dama feebaroon si uti garab bi si laa la tekkee nag ngir buti garab mhm. mu ne ma ne non sista feebar loo am na xale bu feebar comme but but buy métti la am ma na ko loolu comme noo mu ne man suma feebar du feebar kooku moo feebar mhm. mu ne kaa ñu dem xool xale boo ko gisee di nga xam ne yow sa but méttiwul ma ne ko baax na si leen ñëw fi mu won ma xale bi waaye depuis bés bu ma ko wonee si laa ko ne si staloo wax dëgg la man suma bos meetu léegi li ñoo def mooy mm. ñu traa ñëw lii nee xale bi waaye mm-hmm. to be honest moom this is serious. yeah this is serious because man since ma gis xale bi mënuma téye suma ay rangoñ because uh, serious na and doon loo xamante ne ni métti na trop ndax képp kuy yaay uh, ñaan nga yàlla am doom ba ñaan loo yàlla am doom yeneen nattu uh, tegu ci kawam ndax tey ji mus naa am media platform bu fi ñëw pour xool leen jàppale leen wala. actually try nañ many medias but still. ñu ngi process bi daal. Mm-hmm. am na ñu ne Monday la ñëw wax Monday buy ñëw nii am na ñu ne ñu ngi si kawam. ok ñu si process bi mais ñu ne première personne pour ñëw fii first people. ok uh, which means ne ñun waa industry uh, Gambia entertainment ñun ñoo nekk di very first pageant ku ñëw fii nii ab interview xale bi ak yaayam uh, ba tey ji laajte leen ñu ne kooku nga xamante ne ni mooy papi. xale bi ah, nekku fi nga xamante ne ni mooy si kër bi waaye nijaayi ah, xale bi mooy si kër bi mm-hmm. ah, ba tax na dañoo bàyyi nijaay bi rek moom mu jéem ñoo wax tuuti si li nga xamante ne ni mooy feebari xale bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah man la nekk nii a sonn depuis bu mu àndalee feebar bi nii dem nañ fii nii kaani fi dem nañ fii fee Ah, dem nañ fu nekk waaye mujjee gars yi waa ne feebar bi ni gars yi mënu ko fay si Gambia fii nii. Hmm. moom mu da try ne fii nii fu nekk gars ne dem war dem Sénégal. Ah, moom si biir waxam wax na ne dem nañ kaani fi dem nañ different kind of hospital ah, te gëm naa ne feebar bi doonul loo xamante ne nii ñun Gambien si mun nañ ci dara waaye tey jii ndax mun nga ñoo wax anam yi nga xamante ne nii nit ñi fa lay jaare waaw métti bi moom dafa overland métti parce que xale bi léegoo léegi du lekka du nelaw dafa daf de overland soona léegi si soonee fii nii parce que man maa de nekk di daw xale bi yëpp ma àndaa moom si lopitaan si ñëwee fii nii si ma la nekk coono bi moom daf de coono bu baax a baax Uh, moom nijaay bi mel na ni doon na koo xamante ne ni uh, moom moo amee xale yi uh, te defe naa ne moom it wax dëgg fa yàlla ku ko xool xam ne sonal na si xale bi parce que bu ñëwee ba léegi gis nañ ne mu ngi taxawu kooku nga xamante ne ni mooy yaayi xale bi waaye tey jii ndax bu ngeen demee Kanifing ci hospital bi ñoom bindal nañ leen garab boo xamante ne ni mun naa ispéeni xale bi. ñu bindal nu benn garab depuis bu mu demee Kanifing jooju benn garab. ñu def mooy dañ dee fomp foofu di def ay banda yooyu noonu. ok kon euh, ndax xale bi bu taam bi daf day mën a lekk day siit. Ah, because gis naa ne yaayam morso la téye di ko uppa en mu ko fompa. Ah, waaw daf dee daf dee waaw yaayam daf ko dee fompa waaw su ko fomp de dee fu nekk daf dee yore ay mouchoir wala ay tus ba fa di ko nekk di fompa. Euh, kon dégg ngeen bu baax a baax a baax li nga xamante ne ni euh, yi xale bi aw euh, wax na ko ci feebar yi xale bi mu ne dem nañ Kanifing hospital ba ñooñu noonu dañ ko dee mën a fompa en ñu xale bi peen bi waaye tey jii ndax bu ngeen demee Kanifing ñu ne leen ne xale bi xamante mooy Sénégal lañ ko mën a fajee lan ngeen soxla ni man pour nit ñi taxawu si dañu tere dem moom dama waroon am foofu benn prépa paper bi mu tudda medical report boobu leen nekkoon di waaye jot nañ ko si fan yii leen ko jot na mhm. waaw bu mu ko jotee moom dama waroon dem Sénégal teel leen waroon dem sax waaye yéen leen nekka di moo tax ñun demul mhm. waaw Euh, comme tey jii ñoom jot nañ li nga xamante ne ni mooy medical euh, report bi pour dem foofu nga xamante ne am euh, mooy Sénégal waaye tey jii ku xool yaay bi xam ne yaay bi soxna la li nga xamante ne ni mooy ndimbal te defee naa ne bi ñun ñëpp ñoo bokk peen bi nii parce que gis xale bu ndaw bi yàlla suñ borom teg ko natt boo xamante ne ni macha allah mun nañ ne comme ñun ñu ngi gis bët bi xam ne métit bi fii la toll waaye ñun yorewuñ peen bi nga xamante ne ni comme yaay bi fanaanoog moom moo ko amee ndax yaay bi moom daf day mën a toog di xool doomam bi di jooy ndax mën nga ma laajte loolu yaay be wosite comme dawawiɗarɗe penkuni tun haraɗa wullani wondeji day nde wawde hollinen saydi joy mhm. ah, lolu ah, macha allah man mënatuma see wax lu bari wax dëgg yàlla ndax te depuis ma ñëw ma xool xale bi mënatuma téye suma ay rongoñ because euh, ñoom sax si starting bi ñu ngi maa jéem a wax ndax di nga ko mun ma ne la ne dinaa try ndaxte ñun ñëpp benn leen parce que ñun lii lañ fi am euh, di jàppale ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy néew di doolay ak ñi nga xamante ne ni yàlla suñ borom teg na leen feebar boo xamante ne ni foog ñu mun a jaar si doomi aadama euh, pour ñu mun la nee fajal loolu noonu waaye tey ji ku la bëggoon dimbale moom ki nga xamante ne ni mooy yaay xale bi la moo jaar pour jàppale ko. actually mun naa def like different am na different mm-hmm. like dimbale ko with xaalis pour transportation dem faju liñ ne dimbale ko xaalis mm-hmm. may di xale bi rek mm-hmm. am jaamam ok mooy euh, comme nu ko Khadija waxee xale bi lu mu gën a soxla mooy euh, ku ko jàppale pour mu Uh, because gis nañ né affaire bi dafa nek di man luy luy lik, and mu ngay gëné ndox ci lolu nonu su démé ba ci kanam mëna affect bot bi ci biir comme affect bot ci biir like mm-hmm. bot bu affect bi yeah bot bu affect bi ci biir bo mom foog naa dafa affect ba paré affect na ba pare because nga gis ay sax di gëné ci bot bi comme demba oh. kii am na because si kaw dafa melone né lu doon wow mais ndekete dafa wow si kaw sax yang ci biir so moom dafa jóg suba téré gëné lu wow bi sahi dor door di rot gars si leen ko ñëw raxas use ndox bu tànga ñu génnee ko mais ba si bëccëg bi sax am na noo dee xoolee bët bi da ngay gis gars yi di yëngatu si biir xam nga noonu leen fi nekkee ñu doon ut moo taxoon sax ñu gën a wax ne tey dañoo dem Sénégal ngir sax lu ñuy doon tiitaal mais après si leen jàpp si yàlla rek toogaat xaar il faut nga doo mën a demee noonu tam. Mm-hmm. moo nekk problème bi. ah wax dëgg yàlla duñ mun a demee noonu parce que gis nañ ne euh, xale bi bu tàmbi bi na ko trop sonal na ko ah, bu baax a baax a baax waaye defe naa ne ah, suñ programme bi du mun a gudda noonu ndax te ku si nekk soo xoolee xale bi rek am na luy fiil si sa yaram ah, ba tax na tey jii ndax mun nga ñu jox contacts yi nga xamante ne ni euh, ku si mun a jàppale xale bi mun naa jaar si contacts yooyu noonu pour jàppale. waaw mhm. am na si 3 2 8 4 8 8 1. three two eight four. three two eight. four eight eight eight one ndax oncle uh, bi moom tamit mun nañoo jox nombaam pour nit ku ko bëgg a jàppale. man tamit am na benn nomba boo xamante ne nomba two four four six eight one six. two four four six eight. 244 6816. 16 244 6816. and yaay bi amul benn téléphone boo xamante ne ni comme like suñ ko si buggee call moom it euh, ñu daal number yooyu noonu. yaayam na number téléphone am na number téléphone. waaye yow ku la ku call. moom dina mun a jaar si yaay bi. and defe naa ne ku call Khadija bi nii tamit ah, di nga mun a jaar si ki nga xamante ah, tey jii soo doon. feere ɗono haalude comme haala fii haala meɗen ko honno ɓe waldirtama fii ɓiɗɗo ma ko ɗum waɗa haalde ɗo wallama mi nana e pula eyi eh, haala e pula mi haala e assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu minen de nde ɗo nawnare ɗo anni min ɓay min gindiɗo fof min heɓani lekki makko eyyi ko waɗi si ɓe oɗo no wallude min ɗaara so min heɓay feere walloɓe min min komin ñawdamo seeɗa eyyi Remedentori Ball, eh, come vuole. ok mune da mu ngi ñaan waa Gambien si pour ñu jàppale ko in anyway pour gars yi mun ko dimbale doomam bi daal mun a moom loolu mun a Ah, moom mi nga xamante ne ni mooy yaay ah, xale bi mu ngay ñaan képp ki nga xamante ne ni rek gambien nga en nga mun a dimbale doomam bi parce que defe naa ne doom bi soxna la ah, ndimbal torop torop torop ndaxte defe naa ne opération bi suñ ko def tamit ndimbal la laajte en bi pour mu mun a dem fi nga xamante ne ni mooy Sénégal mm-hmm. tamit loolu dimbal la laaj because mm-hmm. gis nañ na doole bi melut noonu en am 100 percent sure ne gambien su si biti suñ ko gisee dinañ dimbale kooku nga xamante ne ni mooy xale bi ndax mun nga ñëw to the Halabi, please. I'm not going to Aïssatou hmm, Aïssatou ok ki nga képp ki nga xamante ne rek ah, yow yaa ngi seetaan suñ media plateforme bi defe naa ne war ngaa mun a ah, jàppale kooku nga xamante ne ni mooy xale bi ah, ba tax a nekk si media plateforme bi moo xam xam Facebook la WhatsApp anyway dinañ post foofu noonu lii and téléphone number si after dinañ ko bindaal si screen bi yéen ñi nga xamante ne ni yéen yéen a bëgg a jàppale ki nga xamante ne ni mooy Aïssatou ak yaayam ak nijaayam tamit xam naa ne papaam su fi nekkoon tamit dina am am lu bari li nga xamante ne nii dina ko wax ci ki nga xamante ne nii ah, mooy doomam bi parce que képp ku jur doom yaa ngi ñaan yàlla mu tekki ah, mun laa jàppale waaye tamit yàlla suñu borom moom mooy dogal rek a nangu ne la yàlla dogal ah, ñi nga xamante ne ni ñooy industrie Gambie entertainment démba rek la ma gaay wax lii démba la ma gaay wan nataal bi ma ne dinaa ñëw fi nga xamante ne ni mooy si kër yaaye xale bi mm-hmm. ma mun koo laajte en mu expliqué nal ñu bu baax a baax because man lii bu ma ko gisee dama foogoon ne si movie rek la day mën a of the time but today is my first day ma jàkkaarloo xale bu ndaw less than three wala four years three years three less than three years and nga gis ne xale bi mu ngi dunda pain boo xamante ne ni yow mi nga xamante ne sa juruloo ko soo ko gisee di nga ko fiilal something inside but mu ñu ngee bamtuwaa rek di ñaan ñëpp ñi nga xamante ne ni rek yow gambien nga wala nekkuloo gambien fu waaye mën a nekk si àdduna bi rek uh, ñu ngi laa ñaan nga daal di jàppale kooku nga xamante ne ni mooy Aysatu ak yaayam yaayam tey lan mooy mujjantali kàddoom ko joni ko no farla sakitude haalugol a ara mi weltanike ɓe jarama albarka jarama albarka ara eɗen tori ballal fi ñawngol payi konko jarama albarka mi hewrike ɓe fof albarka merci mune mom da dafa bugana tank yen min everyone for doing this and di ñaan ñëpp tam da ngay continuer seen dimbal loolu am pour wax allah te hamna ni ne ñëpp dinañ continuer à ah, loolu nga xamante ne ni mooy ndimbal bi li nga xamante ni bi jàppale soxla leen li nga xamante ne ni mooy ñaan tamit képp ki nga xamante ne ni seetaan nga ko sa loxo jotut sa ginnaaw yow fi nga toog rek mun ngaa ñaanal ki nga xamante ne ni mooy Aïchatou ak yaayam because lii métti na trop ah, te defee naa ne bind jox nañ leen ah, paper bi nga xamante ne mën ngeen soxla woon si lopitaan bi léegi loo leen soxla mooy dimbal parce que soo leen eggee Sénégal ñoom suñ ko xoolee opération la ñooy def te xaalis si opération bi ñun mënuñ laa wax ne amount bii nii la Aïchatou ak yaayam soxla mm. waaye tey defee naa ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy mooy industry Gambia entertainment lii lañ mënoon ah, ñëw waxtaan ak yaayi Aysatu gis ne xale bi mu ngi dunda si pain en ñu génnee ko yéen ñi nga xamante ne nii nag yéen yéenay seetaan yàlla suñ borom am lum leen dénk ah, ñu ngee ñaan ngeen daal di génn si jàppale kooku nga xamante ni mooy Aysatu waaye balaa anything rek man ni daal di jaajëfal ki nga xamante ni mooy kajatu ah, parce que communication bi yëpp moom la démb buñ ma joxee nombaam bi bu ma ko koolee moom tamit lépp lum def def na ko en explainal nañu bañ egsi fi yaayi ki Aïchatou euh, moom it ñu daal di ko bàyyi mu daal di wax laas kàddoom ma am pour waxee rek moo nekk ah, giving thanks to everyone because to be honest since buñ distributé videos bi ñit yi ñu ngay try pour share moo tax muy gën a viral mm-hmm. yaa ak am na ñeneen tam ñu fi andoon yi fi en mm-hmm. képp ki nga xamante ne ni def nga si sa talaa wala dala si ñu ngee ñaan yàlla mu gën la yokkal ah, loolu noonu ah, parce que tey jii kenn ñaanut yàlla di dunda situation bi nii ak sa doom ate ah, ñun ay jigéen lañ ëllëg ñun ñoo war a jur ay doom yi nga xamante ne ni ñoom ñooy teral ñeneen suñu teralul sax am na ñeneen ñu ñuy fajal seen buumi gàcce waaye tamit maa ngi sukkandiwaat di ñaan képp ki nga xamante ne nii rek yow Gambien nga te gis nga lii xam naa ne xool bu bari sax nit ñi mënuñ koo def because man nataal bi bu ma ko gisee to be honest with you people mënu ma koo seetaan bu baax a baax waaye tey ji ñun Gambien si ñun ñëpp a bokk ndey ak baay and gis naa ne comme like moom comme nu mu ko waxee donation baa ngi jóge from everywhere and nit ñaa uh, jël nataal si di ko post seen media platform si waaye ñu ngi leen di ñaan bu baax a baax a baax képp ki nga xamante ne ni jigéen nga muy góor nga mag ngay ndaw lépp loo si mun mun rek na nga ko def xeebun ñaan ñaan xeebun ko ah, te lépp li nga xamante ne ni rek nit mun na ko defar ki nga xamante ne ni mooy Aïcha ak ok asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mooy 244 6816 244 6816 ci defee naa ne less than one week yooyu noonu xale bi war naa mun a dem fi nga xamante ne ni mooy Sénégal bu ma ñëwee ba jàkkaarloog xale bi ba léegi xamatuma ñi nga xamante ne ni yéenay fële suñu media plateforme si di leen wax ne képp ku ko dimbale rek doo ko rëccu ndax fu la yàlla di fayee doo ko xam ah, ba tax na ñu leen di seen soppe ki ku nga xamante ne ni mooy Awa Eva ah, di leen ñaanal yéen tamit ngeen endoog jàmm ak salaam jërë ngeen jëf